salaamalekum gars yi ñu ngi nuyu monde lamb ah képp kuy dundu lamb ñu ngi lay woo. Boy Niang Tapha Tine seen fees su fees le 5 juillet gars bu ko kenn tardé ñu ngi ci woo mbokki amateur yi dina xum dina neex te kon bu ñu ànd ceeg promoteur bu mag bi Pape Kallis ak Leewtoo ah. bu baax yéen suñu internet di am contentement jano géen chaque jour nee naa leen mbégte bi nag mu leen indi li gën a fës ci xibaaru làmb ci noonu damay nuyu Mbaye Babacar ma feggul ñu daal di àndandoo jukkil leen li gën a fës Mbaye maa a leen jàmm ak salaam comme ni ma ko waxee chaque jour du ma ci ndax dañoo indil duurin bi gën ci duurin yi nee leen teg ci pat vermicelle j'adore macaroni j'adore mm-hmm. indi ñu spaghetti j'adore ñee déedéet waaye mu daal ci teg ataaya j'adore kenn du Aziz Alain Ndiaye ak équipe am boobu noonu ah waaye dégg naa ci ñoom lool ki ci topp nag Baye Babacar xam nga ko waaw ki ci topp kon ni ngeen ni koy waxee chaque jour rek mooy au xam nga ndox mi nag maa ko bëggal sama bopp taamu ko tippee ko te yaakaar naa Sénégal yépp noonu lañ ko bëggee ndax ndox mi dafa set sell ba pare oyof wante boo koy naan ferñeent yi ngay sentir ci biir jar jar na ñëpp wuti ndox mi nga xamante ne bii mooy eau te bul fàtte ne nag mooy ndox mi nga xamante ne bii moo ñuy aar eau Kayar ndox mi ñuy aar. ok eau Kayar la moo ci mun fuuf laata ñu ñëw ci revue bi rek tiis ak naq dafa daanu ci kaw reporter yëpp mais mën naa ne sax axlu senegal yëpp. Mm-hmm. ñetti reporteru leeral TV yi génn àdduna keroog ci accident bu métti boobu noonu ñi ci ñaan Mbaye Babacar yàlla yërëm leen te xaaral leen yu euh, wax ne ay lañu ñu daanu ci toolu xare ndax ñu ngi woon ci seen mission ñu ngi woon ci seen liggéey ñu leen di ñaanal bu baax a baax suñu borom yërëm leen te jéggal leen yóbbu leen ci aljanaam yu kawe ya suñu naataango yooyu nga xamante ni bii ñoo nekkoon fële ca leeral TV. Amin jeudi 3 juin 2021. journal suñu lamb moom xëy joxatam mu njëkk plus d'un demi milliard en combat sponsor yu ëpp tëllaw ay Balla Gaye numéro 2 Mbaye Babacar. affaire machine ah, Balla Gaye. Balla Gaye dañ tuddee ko la machine à hmm. maanaam machine boo xam ne daal xaalis rek lay liggéey. wallaay wallaay moo tax journal bi tey dafa ñëw affiché benn photo am sax jël xaalis bi teg ci gannaawam. Hmm, wërale ko ko. Hmm. ñu bàyyi la nga développé. ayca suñu làmb tey dafa bind a baax li ne bii combat bu ci nekk lam ca laal macha allah mi ngi noonu ku nekk xam nag mu euh, na Balla Gaye la mbër la ma nga xamante ne bii promoteur bu ko tëgg doo ko. rëccu ba pare PPV minimum minimum dina la jaay li nga xamante ne bii moom mooy 100 millions kooku mooy Balla Gaye doomu Double Less la bu sàccee Serigne Bourou Mbacke li dëkk fële ca géej waaye waaye fan yi mu ñëw fële ci INSEP ca France. bu pare mu ngi noonu Balla Gaye numéro di ko ñaanal lépp mu ñëw jikko waaye daal da ne jël na ñeenti avance yu 10 ak ñeenti avance yu 12 ca doon nag baabooy looloo gën ba nekk ca Pikine moom nag seen mm-hmm. CNG daal di koy régulariser li nga xam ne ne mooy mën naa bëriwaat ba romb âge bi ñu ko àppaloon. Mm-hmm. Baboye nag nee na pare na pour bëri ki nga xam te ne mooy Mourou Anta bu Thiès xale Thiès ba nees ak ki nga xam ne nii mooy. Mourou Anta mm-hmm. Baboye moo yëkkati yooyu le kàddu ci journal bi moom Mourou Anta de de de de Pikine euh, mbir la ma nga xamante ne bii. yaram bi li mu toll doole ji ëpp na loolu parce que booy xool mbër yi mu jot a jàkkaarloo mbër yi mu jot a bëral ak mbër yi mu daan mën naa wane loolu parce que daan Bombardier plus de cent vingt kilos wala cent trente te daa boo koy xool bu yem bu bu ak mën na ci cent yem mu ñëw nag tey gannaaw ba CNG ne mën na ñoo yokkal mbër yi ñu dem ba romb quarante cinq su fekkee amul benn feebar ba nga xamante ne bii mu ngi sa biir yaram mën ngay bëri du romb 45 ans daa euh, booy laaj ki nga xamante ne bii moom mooy moom nees ak Modou Anta wante yemul foofu de nee na ñu ko Gris Bordeaux wala Bombardier xam nga ñoom ñaar daan na Gris nee na ñoom ñooñu ku ci ñëw tamit. pare na pour jàkkaarloo ak ñoom Baboy ñoo yëkkati yooyu ne kàddu. loolu daal pour mu leer kii di Baboy gaynde ga ca Pikine dafa parewaat pour tooyalaat xeftaanam tooyalaat ngémbam daal daw 100 mètres yam mën ca noonu nag ginnaaw combat ba tàng jër ca fañ jëm le 9 juin le 19 sax parce que instant ñu ngi am xel ñaar ñu ngi naan le 9 ñu ngi naan le 19. Mhm. journal nag la ma wax nee na bi le 19. Maxime Bargane moo ci xëy daal di ciy ci xam ne nag mooy kii di Franc aw njaago or ba ca parcelle mooy favori waaye adversaire war a bàyyi xel mbër boobu waaye seen boo ko mën a bàyyi xel la ndax ku nekk xam na ne du neexul ñebbe te écritage si nga nekk dafa mën a bëre dafa mën a xeex loolu la ki nga xamante ne bii loolu la Max Mbergane wax ma nga xamante ne bii day bëre wante du sonn mais nee Max Mbergane nee na Franc nag dafa daan ñaari xarit ki nga xamante ne bii loolu Tyson de moo daan ñaari xaritu Franc mooy ki nga xamante ne bii mooy Gora Sock ak Garga Mboye ñoom ñaar ñëpp sunu juuma ay xariti franc lañu wante nag na Tyson 2 mbër moom complet ma a a bëre mën a xeex ñu nar ba nga xam ne Vox Arena ñoo ko tëgg suñu naataango yooyu nga xamante ne bii macha allah dañ leen di jaajëfal ci bu mag boobu ñu nar a gis combat bu rëy fële ci arène nationale. noonu toog dafa ne yaa jamais 203 ñuy xaar nag ndax troisième bi dina antom du antom. Mhm. kii di Tyson 2 duggaat na parcelle. te loolu laxaat nag ginnaaw soog yaay am ci weekend bi nii weekend bi nar naa tàng jër samedi dimanche ba mercredi yëpp ay combat combat yoo xam ne dafa neex combat espoir. te mhm. kon ñëw nag diggante Sokh ak Gamou Gueye numéro 2 nee na combat boobu combat bu dangereux la Mbaye Babacar. ñooñu foofu waxtaan na ak bi ci combat bi war a dox ci diggante Ndandi Fall ak Dame Sène wante waxtaan na ci combat bi nar a dox ci ki nga xamante ne bii moom mooy ak euh, mbër bi nga xamante ne bi mooy fils de Zallo mu mel ni ñetti affiche yi war a am ci euh, weekend bi Abdoulaye Ndiaye décortiqué nañu ko ci journal bi nee na bu ñëwee ci première combat bi fils de Zallo ak ki nga xamante ne bi moom mooy Aboy nee na combat boobu noonu combat bu nar a la ndax ñaari xale yi ay espoir yi lamb te dañoo am gannaaw. dañoo mën a bëri ñu ñu ñu ci Ndandi Fall ak Ndam Seen euh, mu ne euh, ñu nar nar nar nañoo gis combat bu gaaw waaye nar nañoo gis combat bi nga xamante ne bii tamit ñaari xale yi war nañu war a wat li nga xamante ne bii moom mooy seen bopp war nañu andi bëri pur te it combat bu nar a neex lay doon mu ne ci combat soq ak gàmmu gi wala gannaaw bu ñu xoolee ñaari mbër yi ñu def li nga xam ne moom mooy seen i face à face li ñuy gën a jàpp ci seen xar kanam mooy pare nañu ci côté yëpp. soq pare na gàmmu géey pare na nee na soq mbër la ma nga xamante ne bii lis mënatu koo jaaxal ndax bëri na ak kuré bëri na fu ne mais gàmmu géey mbër la ma nga xam ne dafa complet dafa mën a bëre dafa mën a xeex loolu Abdoulaye Ndiaye yëkkati ci journal bi Abdoulaye Ndiaye moo xam ne loolu ginnaaw ba ñu jógee drapeau du chef de l'état fee ca Kaolack mhm. dañuy xam ne nag mooy trophée boobu ñu duppee président de la république war nañu xoolaat càmbaraat organisation bi daal ci indi ay innovation yu bees Mbaye Babacar. démb léegi suñu suñu làng moo yëkkati yooyu la kàddu ajaratu Ndeye Mbacke Diop nee na mu sañoon li nga xamante ne bii ma mooy drapeau bi chef de l'État ñu xool jamono bi ñu koy def maanaam période bi ñu koy def ñu xool ko bu baax a baax ndax gis nañ ne. tenor yu bëri mënuñoo ñëw ñu ci man na ay ñoom Serigne Ndiaye de ay ñoom Fa dañu am ay combat nee na bu sañoon mu xool xamante ne bii moom la ñuy def drapeau du chef de l' état wante nga xamante ne bii mooy mise bi tamit bu sañoon ñu yokk ko ndax ci côté individuel ku jël sa ku sa catégorie cinq cent mille ngay am nee dafa jox ay proposition nee na mënoon nañu jël benn entreprise jox ko benn catégorie entreprise bu ne ñu jox ko benn catégorie ndax li tax mu wax loolu nee chef de l'état ñetti fan nga koy bëre te bu fekkee mbappat na mën nga dem ci benn mbappat am plus de 500000 ci benn ci benn ngóor mais nag suñ jëloon entreprise bu nekk ñu jox ko benn catégorie mën nañoo gis ministre ba nga xamante ne bii mën naa ëpp loolu fi mu terminé loolu nee bu sawoon tamit li nga xamante ne bii moom mooy mbër yi ñu régionaliser leen maanaam mbër bu nekk fa nga amee papier fa nga juddoo yaroo fa màgge fa foofu dong ngay a bëral ndax. drapeau bi chef de l'état da ngay gis mbër yi fu nekk la ñuy bëree gis mbëru Fatick dem bëri Kaffrine gis mbëru Diourbel dem bëri Ndakaar gis mbëru Kaffrine dem bëri Ziguinchor mu ne loolu daal bu solo ñu càmbaraat ko xoolaat ko bu baax a baax muy mbër bu nekk fa mën a bëree dembale bu suñu làmb moo yaatal loolu ci journal ko jaajëfal bu baax moom dembale dañuy daal di jàdd tuuti dem journal record la muy xamee nag ka ne woon maa waxoon mbay waxeet maa waxoon waxeet ëmma seen borom taay si nga borom def du wér ginnaaw bam ne du ma bëri Balla Gaye jamais danaa <laughs> bii bàyyi naa ko moo delluwaat ba ginnaaw mu gisee avance du millions yi daal di bëri gaston mi ngi daal di koy tegal ci table bi kase ne ko signé daa delluwaat ginnaaw ndaa ngi daal di signé combat boobu Mbaye Babacar argument yi mu joxe ñu mën koo jàpp Mbaye Mbacke lu waral mu jël combat Balla Gaye euh, war a bëriwaat ak moom nee na Matar Ba kilifaam la xaritam la xaritam la te dafa yindaar loxoom ne ko jëlal combat bi nee na magam bi nga xamante bii mooy Pape Ngom tamit xamante ne bii daanaka mooy léppam daanaka ci gas ci moom la gasoo jaar ba combat bi taxaw wante nee na yemul per gasoo yemul foofu tamit xam nga dafa bëri dafa bëri ay dafa bëri ay turoxo turoxo mm-hmm. nee na woo na ki nga xam ne mooy sama papa waxtaan ak moom ba déggoo ak moom te man daanaka yëguma ci dara nee na lii moo tax ma jël li nga xamante ne bii moom mooy combat bi mais loolu moo yoon sax ay xale la ñoom ñoom war a di bëree sa biir. Mhm. ne jamais dire jamais tubaab bi moo wax. moo tax non wax baaxul quoi nit loo mer mer mer jéem a la maîtriser sa bopp jéem a la maîtriser sa ay kàddu xam ne mer bi day jeex te mer bi bu jeexee leneen mën na amaat. mën naa ñëw te Eumeu Sène Balla lutte simple moom Jax ndax ay misam day ngande ay mbër yu mag lañu fay gis ay combat yu neex lañu koy gis incha allah mu nar a teg juróomi million fële ca stade Iba Mar Diop ñu nar a gis euh, bëre ba nga xamante ne bii bëre simple lay doon waaye combat yu a lañuy gis incha allah. la nar a neex nar a raw léegi mooy face to face ba nar xale nar a amali boobu di Sa Thiès le prince rakku Balla Gaye a 2. doomu Doubless mm-hmm. ak ki nga xamante ne mooy Moussa Ndoye jàkkaarloo ku ne xas-xas loo féete seen 2STV incha allah dimanche bi ñu jëm Mbaye Babacar loolu dimanche a am diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye pare ba soo moo ko dafa mm, foofu ci 2STV ni ko waxee ñoom ñaar ñu fas yéene jàkkaarloo xas-xasloo ndax làmb dafa baaxoo loolu nag ñaari mbir bu ñu waree ndaje war nañoo jàkkaarloo ku ci nekk wax amateur yi ku ci nekk wax axlu làmb jouru làmb ja lan ngay andi loolu incha allah dimanche la war a am ñu nga xamante ni bii dana tàng jër. mënoo nekk weekend am samedi. Mhm. Pape Thialis daal di woote Boy Niang Tapha Tine. fii samedi samedi le xam mooy to face mhm. le dimanche. Mhm. Sa Thiès Moussa Ndoye Fallou Ndiaye borom kéwél gi moo mm-hmm. woote. Mm-hmm. combat bi dina ci Ada Fass ak nga xamante ne mm-hmm. a a neex a neex làmb ku ko xiifoon ku ne di nga ko doyal ca noonu nag dañuy jeexalee journal suñu làmb Babacar Dione mu nekkoon fii Leewtoo TV. Babacar Diome Babacar Diome. tam nekk Equivox day daal jël soxna. ñaareel daal la tax man moom laa gëm de Babacar. yow da laa gëm ñaareel ba. waaw ca ñaareel ba la ñaareel ba la. incha loolu tey la war a am Babacar Diome. borom Equivox borom Arena borom borom borom Equivox borom Arena moom moom moo takk soxna tey incha allah bu ci yàlla ànd mais deuxième femme la de. deuxième femme maa nekk troisième bi. waaw ah yaa ngi nekk troisième bi. takk dënn Babacar bu ma lay wax dégg nga moom takk takkoo ma sama takk dënn. mais Babacar Babacar nga laa wër. daf maa wër waaye dama jox sama takk dënn. mais est ce que yow jàppoon dafa mel ni ci coono kuy kuy ndaw nga jàppoon. loolu lay nduroon nag ba mu gisee maa ngi commencé jooy ne sa ci revue bi. Babacar takk dënn sama jigéen am nañu ko takk dënn bu ñaanal bu baax a baax sëy bi yàlla def ci njaboot gu barkeel def ci li nga xamante ne bii mooy barke ngeen dund ba fekkee seen njëriñu njaboot sëy bi bokk ci sëy yi nga xamante ne bii ñooy gën a neex ci sëy yi ñu ngi lay souhaiter heureux ménage par anticipation Babacar Diome suñu ko suñu Babacar Diome suñu confrère boobu nekk fële ca Equivox di ndaanaan ci liggéey bi nag. muy noonu dama ko jaajëfal bu baax moom Mbaye Babacar loolu moo nekkoon li gën a fës ci xibaaru làmb. mbay looy tàggatoowee. xanaa jaajëfal ñëpp dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee jaajëfal bu baax a baax a baax nag sama jigéen sama xarit Binette Fall nekk fële ci États-Unis d'Amérique moom dafa ñuy topp saa su ne ci revue de l'arène bi ñuy def fii ci Leewtoo TV ma nga États-Unis d'Amérique wante dafa ñuy topp saa su ne moom ak njabootam ak magam bi nga xamante ne bii moom la ñuy wax euh, Madeleine Madeleine Diagne ñu ngi ñuy topp saa su ne. Euh, Binet Fall borom Fatima Hair Braiding ñu koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal jàmm naan ko nuyu ñu sa borom kër Grand Fall ñu ngi di ñaanal jàmm bu baax a baax foofu ci États-Unis di leen di leen bëggee saa su ne. ci noonu la daal rek lu mu nekk li gën a fas waaye balaa may tëj tey daan ku xewle nit ku sori ci man. Mbaye mhm. Babacar nit ku mhm. baax Pape Balla Diouf ñu naan ko Tito. Mhm. Ah, doomu yaay madame Diop. madame Diouf sax laay wax damay kontaan ci moom naa ko happy birthday mhm. di ko ñaanal jàmm mbay kooku fi ma jëlee mhm. ak fi ma yóbbu mhm. yàlla rek moo xam dama koy bàyyi ak yàlla di ko ñaanal gudd fan ak wér li mu bëgg ci kanamam moom moo ko xam yàlla na ko yàlla defar Pape Balla Diop happy birthday dundal dundal dundal dundal ba doyal yow xam nga man xam naa yàlla xam na jaajëf noonu laa di tàggatoo ak yéen jox leen di dajee ëllëg insha allah ci Leewtoo TV salaamaaleykum gars yi ñu ngi nuyu mondu làmb ah képp kuy dundu lamb ñu ngi lay woo Boy Niang Tapha Tine seen fees su fees la 5 juillet gars yi bu ko kenn tardé ñu ngi ci woo mbokki amateur yëpp dina xum dina neex te kon bu ñu ànd mu promoteur bu mag bi toog ak Leewtoo TV ah